ok ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar fu waay nekk rek si réew mi ak si bitim réew tey nag mbégte la ak contentement ñu dalal suñu confrère Pa Modou Mbaye borom Bantamba TV fas yéene waxtaan ak moom si làmb yaakaar naa ne dinañ si yaatal bu baax a baax a baax a baax ñu nuyu waa réew mi yëpp ak waa bitim réew fu waay nekk rek te na ci Gaston Production mbégte la tey ñu jàkkaarloo waat ak yéen ci beneen émission incha allah rabi dinañ faral di wàcc si terrain bi di jëli techniciens yi. ak ñeneen ñi nga xamante bi nii ñoo ngi ci yeneen structures yi moo xam télé yi la wala site internet yi bu mu si man di doon parce que ñun ñëpp bu ñu dee gis yaakaar naa ne ñii ñoo tax ñu liggéey ci làmb lu ama am solo muy Pa du mbay di doom si suñu papa père Bekaay dañ koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyoo mbokk internet yi ñu dugg ci liggéey mais man Petit mooy sama xarit Petit mbay kër ga nag dama faa xaw a kii am naa fa benn tooma tamit maa ngi koy baax a baax moo maa lay siyaar baax di la bëgg. maa ngi lay siyaar mon frère Modou di la nuyu di nuyu sa caméraman Khalil di nuyu toute la famille Mbengue nuyu suñu frère Makan ñaanal suñu papa Gaston Mbengue yàlla suñu borom fëgg boppam mu jug ak jàmm ci barke Seydina Mohamed di la nuyu di nuyu internet di nuyu ñëpp ñuy seetaan à travers dans le monde di nuyu sama papa di nuyu sama yaay nuyu toute la famille suma kilifa Modou Mbaye maa ngi koy nuyu waa di la bëggee bu wér waay am mbégte kontaan te jàkkaarloo ak yow xam naa moom. yaa may fekk yaa yaay def lu ne yow Mourane yaa may wax loo. <laughs> macha allah noonu la demee Pa Modou ngeen nekk si làmb di ci liggéey liggéey bu am solo des fois sax Pa Modou bu ñëwee si làmb kuul kuulam toog ru xam nan ngeen di dundee période bii ñu toll làmb ci. waaw mais loolu loo gis rek dafa am dafa am dafa am dafa quoi loo gis rek euh, expérience daf ci am solo quoi macha allah. làmb moom biñ nekkee biñ gënee nekk xale ba tey ñu ngi ci quoi gis ci lu nekk dem si fu nekk def si lu nekk waaw defu defuñu si dara sax mais maanaam parcours nañ ci quoi def nañ ci dem nañ ci fu nekk wër nañ ci Sénégal xam nga fekk nañ événement yu bari donc loolu ah, nekk nekk 2 bi jàngee fa xam nga 2STV ku wax 2STV si làmb xam ni mooy télévision bi nga xamante ni nii moo révolutionné làmb yóbbu waaw yóbbu làmb foo xamante ni nii macha allah adduna bi yëpp buñ dee bëgg làmb ginnaaw yàlla ak yonent bi 2STV daf si jouer rôle bu important à travers HBK Mbaye suñu kilifa suñu papa nga xamante ne nii lu ne lu ne def na ko ci làmb dem na ci fu ne macha allah donc boo jaaree si ay loxo yu bari jaar fu nekk xam si lu nekk. waaw mooy waral boo ñëwee ci làmb rek yow da xam ni làmb di tëree di tëddee ak journée bu nekk ak li mu laaj quoi. macha am na solo Pa Modou fan la tàmbalee ci làmb. bon làmb moom buñ ci liñ ciy tàmbalee ñun euh, ñun ñun ñëwuñu ci làmb en tant que nitu làmb quoi dañoo ñëw si làmb en tant que technicien ñëw si làmb parce que 2S nekk di liggéey donc boo nekkee 2S di liggéey ba pare. mu nekk benn vice avant deux s aussi tout le temps chaque jour bu sama papa fu mu mësa a mës mën a dem ci làmb ñun la àndal fu muy dem ci làmb bi muy dem di interroger ay ay ay champion yi nga xamante ne ñoo nekk tey si làmb ñi ngi nekkoon ay xale yu ndaw di téye ay trépied di téye ay micro di téye ay lumière à travers ñoom Babacar Ndiaye ñoom Medoune Diouf ñoom Mawo tu ñoom Karajo et tant d'autres ñoo xamante ni nii ñu si seeni loxo lañ jaar ñoo ñu formé donc loolu en tant que technicien après nag yàlla def nag en tant que xale yàlla def nag ñu def formation suñu papa fayal ñu ay millions ñu dem jàngi def audiovisuel jàng réalisation jàng montage jàng caméra jàng son donc nekkul au hasard nii rek lañ ci duggee quoi ñoo dem jàngi technique mën leneen tamit lu dul làmb parce que tamit ñun du si làmb kese la ñuy évoluer si wàllum audiovisuel dañuy def leneen ak leneen mais sunu borom moo lay moo lay ngay am vice si benn affaire vice bi euh, làmb la quoi waaw da nga da nga ciy dem benn yoon nag affaire bi neex la mu nekk sa passion yàlla def nag ba àdduna di dox di dox di dox ba père bi ngay def làmb émission bu am importance ba monde bi yëpp apprécier ko yàlla di def nag ba El Hadj Ndiaye dénk ko télé bi ñu naan Bantamba TV di wax uniquement si làmb waaw donc loolu bu koy buñ ci ñëwee nag suñu borom dogal tamit ñu am luñ ciy représenté si biir structure boobu donc day day nekk benn continuité rek day nekk jaar-jaar quoi waaw. ok am na solo yaakaar naa ne kër gi bi nga ñëwee danga fekk père nekkoon ci leneen téye rek yu demee noonu ba yàlla dogal mu mujjee si làmb ji sa mag aussi tamit Modou mu mujjee si làmb ji mais yow lan moo tax. suwaa woo micro bi nga suwaa ordinateur yeeg trépied yeeg caméra yi lan moo war a suwaa waa waaw ku nekk ak li sunu borom di def ci yow. waaw parce que Momadou au début moom nekkul woon choisirul woon micro sax c'était au hasard nii rek. waaw c'était au hasard nii rek nga xamante ni nii benn jour Père Bégaay moo demoon euh, beneen reportage moom ak Médoune ñu ànd feneen Médoune dem ba ci làmb ñu ne ko am micro bi reporter mu ne ko lu may wax waaw mbiru mu ne nii mbiru lu may wax mbiru ne ko ah xaw ma looy wax de waaye bu yeboo nga wax yaa fi ne tey perne wu fi c'est au hasard comme ça sunu borom déclenché fa ay mbiram macha allah mais avant boobu ñun ñi ngi woon ci audiovisuel Mamadou ñun ko jiitu si audiovisuel mais mais mu def si aussi parcours moom jàng na jàng na infographie def na infographie Modou Mbaye waaw dem def jaar na sub info jàng infographie et tout mais boobu fekk na bien avant ñun ñu ngi ci audiovisuel moom si audiovisuel lañ fekk mais ñun bi ñuy nekk si audiovisuel choisir micro non non on a choisi d'être un technicien homme de l'ombre rek ku nekk ak li sunu borom di def ci yow loolu la woon quoi ba sunu borom départage tâche nag man ma nekk monteur nekk réalisateur. ci ci ci ci quoi sunu borom xiir ñu ci làmb nag. macha allah am na solo euh, fi may euh, door ak yow ba tey mooy làmb audiovisuel bi ngeen di def ndax am na ay risque ndax am na ay jafe-jafe. waaw waaw waaw làmb ak audiovisuel ñoo ànd parce que lépp loo gis ci àdduna te amul visibilité gëm naa ni du sori sunu borom nag dafa jagleel làmb loo xamante ni benn sport amu tey conférence de presse bu amoon fiiw làmb ak conférence de presse football du doon benn bañ nañ ko ba ni famille wu làmb la ñuy wax gas sit bi nii ngay may waxee nii spécial làmb kase lay wax li TV spécial làmb lay wax les arènes la même chose te loolu doole la jàmbaar news làmb rek lay wax tant d'autres am na Baol TV Kewel Info bari nañ ay sites yoo xamante ni nii làmb kese la ñuy wax donc loolu si loolu pouvoir la mu Mour Anta pouvoir la nekkul ay nekkul affaire bu bu bu oyof nii non moo tax keroog bi su bi mini euh, président de la république di recevoir waa làmb dans les dañoo waroon am un représentant de la presse parce que Mouranda bu mu Modou Lo Balla tëju woon fii ci terrain bi di bëre kenn filmé wu ko kenn wane wu ko dinañ ci wedde. caa amul ñor la. dinañ ci wedde yaa mooy tamit dafa nekk benn pouvoir boo xamante ni lu ñu war a jox cër la te ñun tamit suñu biir ñu xam li ñu yor lal la parce que tey li nga yor mën na defar lu bari mais aussi mën na yàq ci ay fraction de seconde. donc nañ ciy wax lu rafet di ci def lu rafet ndax ay image ay image ça demeure éternellement donc nañ ci bàyyi xel surtout YouTube YouTube du fay YouTube mooy télé boo xamante ne du fay saay soo tapee Modou Anta Modou Anta génn saay soo tapee Massamba Massamba génn donc nañ ciy wax lu rafet di ci def lu rafet. ok am na solo léegi eh, eh, beneen question bi mooy pour sants nii ñu toll nan nga gisee taxawaayu làmb waaw Moranda làmb nag dafa war a am assise assise nationale parce que li gars yi naan ay làmb dafa dafa dafa reculer làmb dafa perte dayo mais làmb bu perte dayoo boo xamante ne nii Moura Anta fi mu ne nii li duggagum CNG ba janvier da di jeex na te saison bii tëjagul ñu ne làmb dafa reculer dafa perte valeur mais làmb léegi la am valeur la ëpp valeur. léegi la lamb approuvé la dañ naan chaque grand combat yi ñu daan dégg chaque mois chaque deux mois affaire yooyu noonu moo raar rek mais boo yaa ngi bëre ñaata jeunes ñooy bëre yoo xamante ne nii chaque weekend chaque déjà samedi ak dimanche léegi amatul si laam am na xoola Ousin promoteur moom xëccoowul samedi ak dimanche ma nga laal mercredi kon ay lamb mercredi lamb lundi xoolal lamb bi passé lambu xippil xool bi mbappatu lëndéeg mardi stade bi fees dell après ñu ne làmb dafa perte valeur li ñu war kay li ñu war a wax kay mooy làmb dafa war am ay réforme ñu xool CNG bu fekkee li ñu yor da leen a ëpp doole nañ ko wax ñu renforcer équipe bi parce que làmb jii nii nekkatul ay caaxaan mu daanta dama ni la làmb dafa dépassé waa lamb yàgg naa ko wax na waa làmb utaat ay réforme yu bees teg ko journée yi nga xamante ne ni am na ay journée yoo xam mën nañ leen a boole ñu xool promoteur yi nga xamante ni seen i budget ànd na ñu boole leen ñoom ñuy coaliser tëgg ay làmb promoteur bi nga xamante ni mën na demal boppam ñu xool samedi ak dimanche nan lañ koy organiser mais da gis làmb boo xamante ni làmb samedi boo xamante ni moo gën làmb dimanche bi ñu jël ko yóbbu ko yóbbu ko yóbbu ko yóbbu ko dimanche yóbbu ko samedi loolu c'est lu ñu war a xoolaat la lu waa CNG war a liggéeyaat la si ay réformes yu bees leneen ak leneen ak leneen mi ci biir buñ jógul si loolu nag Mouranta làmb nii rek lañuy dëkkee suñ xëyee coow bu ginnaaw suba euh, état bi ne waaw diw jàpp nañ diw làmb nouvelle ordre ba nouvel ordre ñoo sonn si ay nouvel ordre wala lamb dimanche ji lambi dimanche ji tey ji nga xamante ne nii moo waroon a toj àdduna bi gala de lutte boo xamante ni gëj na fi galaaw dix fukki combat valeur boobu kenn xamul nu mu tollu état bi est-ce que ñoom duñu jël seen renseignements généraux yi yóbbu leen ñu infiltrer ay mbër ñu xool seen préparation yi liñ ciy daj balaa ñoo mën a xëy xëy benn jour rek ne à part cas de force majeure balaa ñoo mën a xëy jour rek ne lii am na fi nañ annulé làmb ji noonu nañ dem infiltrer boy yi xool ni mbër yi di préparer seen combat yi. waxuma ay Modou Lo waxuma ay Balla mais booyu ndaw yi xoola un Liss Ndiago li mu dajul si làmbam ji un Garga 2 xoola ñooñu dañoo sonn si seen journée yi macha allah ñi ngi félicité Mansour Ba dégg naa sax si tabaski bi am na ay action solidarité yu mu def ak mbëri donc loolu la làmb soxla donc na si état bi ngir yàlla wa rasulihi dugal loxoom ndax lii nii nekkatul ay caaxaan. te ku si foog ni nag ci ay caaxaan lañu nekk yaa ngi juum de di nga am lu la bett lool di nga am lu la bett torop torop torop torop donc CNG ñi ngi leen di alerter si loolu nañu utaat ay réforme yu bees saison baa ngi tëj bu saison bi tëjee nañu toog ñu waxtaan tëju waxtaan ut ay solution yu extraordinaire yu ñu mën a piloter làmb ji ndax làmb ji nekkatul nekkatul xëy dagg billet nekkatul xëy dagg licence nekkatul loolu làmb ay réforme la nañ jug si réforme yi xool nan la ñuy valoriser làmb ji mu jëm sa kanam sinon dina leen romb dem de. macha allah wax na lu ama am solo ah parce que tamit kàddu googu yàgg naa di ko dégg làmb dépassé na waa làmb làmb dépassé na ñi ko yor te yaakaar naa ne nag ayu bis yi ñu génn loolu mi ngi feeñ bu baax a baax a baax deux questions pour ñu tëj émission bi ban combat moo la gën a marqué ci làmb combat. combat combat combat yi ma yi ma yi si làmb nag bëri na bëri na bëri na trop waaw bëri na trop mais bala Gaye Modou bu njëkk ba nekk na journée bu mu marqué. loolu loolu loolu loolu si li defar làmb la bokk journée boobu si li yóbbu làmb ci kaw. la bokk. moo yee làmb moo moo moo moo moo bàyyiloo nit ñi xel làmb. te jamono boobu ñoom ay espoir lañu woon. ñu génn. ñu fayoon leen quarante millions. te boobu. ci leen biñ leen di fay quarante millions ñoom sax gëmewuñ ko woon. Mm-hmm. ku nekk yaa ngi jigoon si ay quinze million ki vingt millions. Luc Nicolaï ñëw doublé leen seen cachet. Mm-hmm. macha allah donc lu am importance ngi noonu loo xamante ni nii moo war a nekk identité làmb journée boobu noonu. identité làmb la d'ailleurs boo dee laajte boo dee xool ay image yi dàq si si làmb image ba yooyu ngay jëli signature de contrat bu amoon mbuur ah. diine dîner de gala ba amoon teeru bi moo doon àndal loolu mi ñu fekk si audiovisuel tu sais tu sais loolu mi ñu fekk si audiovisuel loolu man maa ko monté woon man ak sama bu tuddoon mu Moussa Dia. macha allah. yaa ngi si làmb. ma ci làmb maa ngi si audiovisuel boobu. boobu maa monté loolu diine de gala boobu maa ko monté man ak sama frère bu tudd Moussa Dia waaw donc ce qui veut dire que ñun biñ nekkee ci audiovisuel ak làmb yàgg na donc mu nekk journée boo xamante ne nii li ci am si ay événement li ci am si si si spectacle si spectacle dafa jéggi dayoo macha allah ñuy félicité aussi Eric Favre mi ngi yokk na ko làmb dooleel. nañ ko gën a xëcc suñu biir wan ko yoon te bañ koo nax nag waaw nañ ko wan yoon bi wan ko ni nii la jàppalee ñu nii mu gën noo dolli ndax am na am na idée te bëgg na def donc nañ ko gën a dooleel pour mu def waaw macha allah wax na lu ama am solo parce que Eric boo gisee xam ne amul problème mu moyen ci làmb te bu ñëwee làmb day fay mbëri ba pare def innovation yu bees sàkk parce que làmb chaque jour waa làmb dañuy répété même événement yi li fi am ah. mais mais Modou du ñu fàtte sunu frère Makan Mbengue waaw moom it mi ngi def ay innovation yu am solo mi ngi fekk fi paa bi yamale woon affaire bi bëgg a yóbbu beneen niveau làmb ji donc ñu ngi koy encouragé du encouragé promoteur yëpp waaw wax surtout waa jàmbaar production ñu ngi leen di encouragé ndax ñi ngi ñi ngi marqué seen empreinte ci làmb ay journée yu am importance ca France soq ba tey ñi ngi wane seen bopp déjà combat espoir bu toll noonu tamit tëj arène national loolu c'était une première waaw ñooñu ñoom ñoo ko def donc ñu ngi leen ci félicité di leen encourager bu leen wax ni bu leen décourager début bi la rek day difficile dina def nii mais après day neex li ngeen di gën a dem expérience bi di gën a ñëw Makan Meng aussi ñu ngi koy encourager na gën a jàpp di sunu frère Baye Ndiaye ndax moom it ñëw na pour yokk donc ñoom ñoo ñëpp ñëw bokk ndey ñëw bokk baay nañ leen nañ leen nañ nañ waxtaan nañ toog discuter seen biir ngir mën a ndax li ñuy jëmale seen kanam intérêt ñëpp la du intérêt kenn si ñoom comme maanaam journée bu makaan mee ngi tëgg tëggalu ko boppam jugoon journée bu jàmbaar tëgg tëggalu ko boppam lamb la ko tëggal bu kenn tëb tëb rek ne waa diw moo def li non non la ñuy wax bu ñuy wax du ñu wax journée Makan Meng dañ naan làmb ma Modou Anta ak Pape Modou comprendre nga donc nañuy gën a def ngir làmb mën a jëm ca kanam donc yu bari ak ay détails si biir nañ ko jël of ko te bokk ndey bokk bàyyi liggéey ngir intere làmb mooy jëmale kanam làmb